yoona sar benn wàll ci lindiin di xabaar bu baax bi ci almasi bi yéesu ni ko yàlla jaarale ci yowaana ca njaalbeen ga fekk na kàddu gi am te kàddu gi ma nga woon ak yàlla te kàddu gi yàlla la woon moo di ki nekkoon ak yàlla ca njaalbeen ga ci moom lañu sàkke lépp amul dara lu ñu sàkk te jaarul ci moom ci moom la dund nekk te dund googu mooy leeral nit ñi leer gi feeñ na ci biir lëndëm te lëndëm gi jàpp ko yàlla yónni woon na nit ku ñu naan yaxya kooku ñëw na doon ab seede ngir wax ci mbirum leer gi ñëw na ngir ñépp dégg li mu wax te gëm moom ci boppam du woon leer gi waaye ñëw na ngir seedeel leer gi kàdd googu mooy leer gu wóor gi ñëw ci àddina te di leeral nit ku nekk ci àddina la nekkoon àddina si ñu sàkk jaarale ko ci moom te àddina xamu ko ñëw na ci réewam te ay ñoñom nanguwuñu ko teewul ñi ko nangu te gëm ci turam may na leen ñu am sañ-sañu nekk doomi yàlla ñooñu judduwuñu ci deret walla ci bëgg-bëggu yaram walla ci coobarey nit ñu ngi juddu ci yàlla kàddu gi ñëw doon nit dëkk ci suñu biir gis nañu ndamam mu fees ak yiw ak dëgg ndam li baay bi jox jenn doomam ji mu am képp yaa ngi koy seedeel te yégle na lii nee na moo taxoon ma wax ne dina ñëw sama ginnaaw waaye moo ma gën a màgg ndaxte nekk na laata may juddu kàddu gi fees na ak yiw te ñun ñépp jot nañu ci suñu wàll mu barkeel nu ay yooni yoon ndigali yàlla yi ci gémmiñu musa lañu leen jaarale yiw wi ak dëgg gi yeesu kirist moo ko indaale kenn mësul a gis yàlla waaye bajo bi di yàlla te nekk ak baay bi moo ko xamle lii mooy seedees ya amoon na bis sewut yónnee ay saraxalekat ca ya ñu ànd ak ñu soqi ko ci géeru lewi ñu nga jóge yerusalem ñëw ci moom di ko laaj mooy kan yaxi tontu na leen te nëbbu ci dara wóoral na leen ne moom du almasi bi ñu laaj ko ne kon yaay kan ndax yaa di iliyaas mu ne leen déedéet duma iliyaas ñu ne ko ndax yaa di yonent bi war a ñëw mu tontu ne leen déedéet noonu ñu laaj ko ne wax nu yaay kan ngir ñu mën a tontu ñi ñu yónni nga ne yaa di kan yaxya tontu leen li yonent yàlla esayi waxoon ne man maa di baat bi yëgle ci màndiŋ mi ne xàll leen yoonu boroom bi amoon na ñu bokk ca farisiyen ya yu àndoon ca mbooloo mën yónni woon ca yaxya ñooñu laaj ko ne ginnaaw doo almasi bi doo iliyaas doo yonent bi war a ñëw lu tax ngay soob nit ñi ci ndox yaxya ne leen man maa ngi sóobe ci ndox waaye am na ci seen biir ku ngeen xamul kookooy ñëw sama ginnaaw te man sax yeyowuma tekki ay dàllam lii xewoon na ci dëkku betani ca ginnaaw dexu yurdaan fa yaxya doon sóobe ca ëllëg sa bi yaxya gisee yéesu muy ñëw ci moom mu ne xool leen kii mooy mboteem yàlla mi ñu nar a rey ngir dindi bàkkaari àddina moo taxoon ma wax ne am na kuy ñëw sama gannaaw waaye moo ma gën a màgg ndaxte nekk na laata may juddu xawma woon kooku kan la wara na doon waaye xamal ko bànni israyil moo tax mu ñëw di sóob nit ñi ci ndox ci kaw loolu yaxya seede na lii gis naa xelu yàlla mi ci meloo pitax mu jóge ci asamaan tegu ci moom bi loola laata am xamuma woon mooy kan waaye yàlla mi ma yebal may soobe ci ndox ne woon na ma dinga gis xel mu sell mi wàcc tegu ci kaw nit kooku moo di kileen di sóob ci xel mu sell mi yax ya teg ca ne gis naa loolu te seede naa ni moom moo di doomi yàlla ji ca ëllëg sa yax yaxya taxawaatoon na ca barab booba ànd ak ñaari taalibeem bi mu gisee yéesu muy romb mu daldi ne kii mooy mboteem yàlla mi ñaari taalibe ya dégg li mu wax daldi dem toppi yeesu yeesu gestu gis ne ñoo ngi koy topp mu ne leen lu ngeen soxla woon ñu tontu ko foo dëkk rabbi rabbi mi ngi tekki kilifa gi yeesu ne leen kaay leen gis noonu ñu dem seeti fa mu daloon ngoon ngonalal ko ca sànni kaw la woon kenn ci ñoom ñaar ñi déggoon li yax Yaxya wax te topp yéesu ma nga tuddoon Andre mi bokkoon ak simon piyeer ndey ak baay andre dafa daldi dem seeti simon ne ko gis nañu almasi bi baat boobu mi ngi tekki kirist noonu mu yóbbu ko ci yeesu yéesu xool ko ne ko yaa di simon doomu yowaana dinañu la wooye sefaas sefaas mi ngi tekki piyeer maanaam xeer cëlëg sa mu fas yéene dem diiwaanu galile te mu gis filip yeesu ne ko toppal ci man filip ma nga dëkkoon batsayda dëkku andre ak piyeer filip dajeek nataniyel ne ko gis nañu ki yoonu musaa wi ak yonent yi doon wax mi ngi tudd yeesu doomu yuusufa te dëkk nasaret nataniyel tontu ko ne aa ndax dara lu mbaax mën naa jóge nasaret filip ne ko ñëwal gis naka la yéesu gis natanayel jëmsi ci moom mu daldi ni ci mbiram xool leen nitu israyel dëgg a ngee di ñëw du dox benn tànku caaxaan natanayel ne ko noo ma xamee yéesu tontu ko ne bilaa filip di laata woo gis naa la bi nga nekkee ci kër garabu figg ga natanayel wax ko ne kilifa gi yaay doomu yàlla ji yaa di buuru israyel yéesu tontu ko ne ndax li ma ne gis naa la ca kër garab ga moo tax nga gëm dinga gis mbir yu gën a rëy yii noonu mu teg ca ne ca dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax dingeen gis asamaan ubbeeku malaaka yi bàggante kaw ak suuf di wàcc ci doomu nit ki